ginnaaw bu ma sante yàlla julli ci sangu-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi maa ngi nuyu kilifa diine yi ci réew mi yépp di ñaanal sëñ Muntaxa Xadimul Xadim sunu wasila yàlla na fi yàgg lool mbàkki te wér ak mboolem xalif général di nuyu son excellence monsieur le président de la république président Macky Sall di nuyu madame la première dame di wax ne tey nag sunu woote bi. Euh, daray waralu ko lu dul ay jigéen yu dajaloo tudde seen bopp les Amazone leaders di kuréel gu yàgg nag di kuréel gu yàgg boot lu tolloog 200 responsables je dis bien des responsables dans l'étendue du territoire nationale ñu jóg nag daan def sociale di ko jëmale ci seen bopp ak tout tànk yi bi at bi di jeex ñu ne ah ñun jigéen ñi kat comme social ci la ñuy yëngatu vraiment nañu jóg nag bi yoon jàppale ji ñi nga xam ne mooy les jigéen ñi nekk camp te yàlla teg leen nattu ñu nekk fa ñu jóg nag ah ndimbal nag daf ci fekk loxo borom tàlla gulunu kenn loxo dañoo commencé par nous-mêmes daal di def seeni don dajale seeni yére dajale seeni dàll dajale seeni saabu dajale seeni kotol dajale lépp lu ñu am lu jigéen di soxla des couches bébé et tout parce que lu ci nekk jigéen ña fa nekk soxla nañ ko comme ñun ñi ci biti niñ ko soxla ñu jël ko dajale ko teg doog a tàllal nag loxo les bon volontés qui sont dans ce pays ndax réew mii nag ah ay defkati yàlla ñi ngi fi ay defkati lu baax ñoo ngi fi te yàlla rek tax ñooñu la ñu jóg tàllal leen sunu loxo jagleel leen nag journée boo xam ne ñi ngi ko war a def le 28 décembre ci incha allahu rabbi ci kattanu yàlla fii ci Liberté 6 extension fi suñu siège nekk euh, ci côté Auchan bi fa lañ ko war a defee à partir de 17 septeur ci kattanu yàlla ñuy tàllal ñëpp loxo di ñaan ñëpp ndimbal dolli ci li ñu yor pour yóbbul ko waa Camp Pénal loolu nag buñ koy def ah am na ñoo xam ne dañ leen ni jagale bis bi tudde leen ko tàllal loxo nag ñépp ndax booy ñaan ndimbal doone na yem ci kii wala na yem ci kee dañoo tàllal loxo tous les sénégalais qui sont ici au Sénégal ak ñi nekk bitim réew di leen wax ne ñu jàpp ci ndax ku jàpp yàlla rekk nga defal loolu moo tax ñu taxawal bés boobu bëgg ko def nag muy sunu première édition di ñaan yàlla yàlla defal na ci ndam lu kawe sunu njort barke Cheikhul Khadim barke Seydina Muhammad. salaamaaleykum waa Sénégal maa ngi nuyu ñëpp man la Bali Bousso secrétaire générale adjointe des Amazone Leaders waa suñu bës bi le 28 décembre ñu ngi woo ñëpp euh, surtout le maire des maires monsieur Aline Sall ñu ngi koy woo Ablaye Daouda Diallo ministre des finances ñu ngi koy woo ci jour boobu ministre Abdou Karim Fofana ministre de l'urbanisme ñu ngi koy woo ñu ngi woo Arona Coumba Ndoffène Diouf ñu ngi woo Ablaye Daouda jàll moom moo yore finance bi ñu ngi woo Amadou Ba affaires étrangères euh, Arona Dia ñu ngi koy woo tamit ci bés ba ñu ngi woo Seeku ja ñu ngi woo Ablaye Mbaye directeur marché central ñu ngi woo Babacar Meng maire de Hann Bel-Air ja ñu ngi koy woo tamit waa asalaamaaleykum waa Sénégal ñoo ngi woote les femmes Amazon yi nga xam ne ñoo nekk Liberté 6 extension derrière la présidente Adja Ngoné Fall ñooy nuyoo di woo ñépp ci sunu bés bi vingt 28 di jiital nag ci nuyoo bi ak woote bi madame la première dame madame mariem fay Sall Adja Aminata Kébé chef d'entreprise di woo Soxna Sey responsable politique la Lyon de l'APR di woo Adja Malado Sow chef d'entreprise te Londres bàyyiwuñu kenn ñoo ngi woo ñëpp bëgg ñëpp ñëw jàppale ñu ci bés bi asalaamaaleykum waa Sénégal ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di leen woon ak ci bés bu rëy boo xamee les Amazones leaders ñoo ko organisé muy le 28 décembre fii ci Liberté 6 extension ak suñu présidente Adja Ngoné Fall les Amazon leaders nag dafay kuréel gu wax xamee ne dafa rëy macha allah ëmb ay jigéen yu takku yu am Pastef yoo xamee ne dañoo xam seen valeur ñoo ànd nag boole seen doole fas yéene nag am fu ñu jëm man la Adja Marie Cissé présidente organisation les Amazon leaders fa ñu jëm nag fan la mooy camp fas yéene jàppale suñu ay moroomu jigéen yoo xamee ne ah xëy na dañu nekk ci nattu la leen fa teg yàlla rek moo ko teg moo leen ko teg kon nag comme ñoom ñu ngi nekk ci ay jafe-jafe ñu fas yéene nag toog def suñu ay doom fas yéene leen dem jàppale jàppale boobu nag ñu leen di jàppale dafa laaj ay moyens moo tax nag ñu ngi woo ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw képp koo xam ne yaa ngi Sénégal rek te am yërmande ci ñoom rek ñu ngi lay woo pour nga dugal sa loxo ci lii ndax nag jigéen ñi takku nañu fi mu nekk nii ñoom ñëpp ñëw nañu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 rabbi ashrah li sadri wa yassir li amri waxlul xuqdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamaaleykum waa Sénégal ñun les Amazone leaders ñu ngi derrière notre présidente Adja Ngone Fall ñu ngi oo waa Sénégal yëpp surtout nag waa Liberté 6 extension ñu ngi oo Adja Jooja Sàmb nag dinañ ko ci tiital ñu ngi oo ñëpp danoo fas yéene yëkkati benn mouvement boo xam ne ci at mu bees mu ñuy wax 2020 dem jàppale sunu naatango jigéen yi nga xam ne ñoo nekk ci camp bi ñu fas yéene si at mu bees bi dem yóbbu suñu ndimbal foofu ñu ngi oo nag waa Sénégal yëpp onze billahi mina sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim laa xawla wala xawata illa billahi alil azim mbokk Sénégal mbokk àdduna bi ah ñun Amazone Leader yi ñoo leen di woo di leen nuyu nag di leen woo ci suñu bés bi nga xamante ni ñu ngi koy dërmal le 28 décembre incha allah mu nekk journée de don destinée au femmes du camp pénal bu nga xamante ni ñu ngi koy organiser fii ci Liberté 6 extension ñu ngi woo nag toutes les bonnes volontés jiital ci nag suñu première dame ajaratu Marème Faye Sall di woo Amazon leader yépp nag macha allah national et international ñu nekk ci Sénégal ak ñu nekk bitim réew jërë ngeen jëf. bismilaahi mina seytaani rajiim maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di ziar ñëpp di woo banlieue bi yëpp ndax ñoom laa fi toogal di nuyu Adja Ngoné Fall suñu njiit bi maa ngi woo ñëpp nag suñu bis bi xeebuñu dara lu waay am nga jàppalee suñu bis bi parce que jigéen ñoo ngi tax a jóg maa ngi sant ñëpp di gërëm di woo waa Caaroy di woo waa Sicap di woo waa Pikine maa ngi woo ñëpp bàyyiwuma kenn ñëpp ñëw suñu bis bu jàppale ñu doole wasalaam. waaw comme euh, ni ko sama naataango yëpp waxee rek ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp di jaajëfal ñi fi teew ñépp ndax pour lii di wax ne nag ah ñu ngi woo Arouna Dia opérateur économique. fàttewuñu aussi El Hadj Daouda Dia premier questeur à l'Assemblée nationale di woo aussi madame Fama Ndiaye madame Mbacké responsable politique à Patte en même temps au conseil ñuy woo aussi madame Didi Mbeng euh, une grande dame chef d'entreprise au niveau de Hann bel fàttewuñu kenn marraines yi yéen ñëpp woo nañ leen ak les autres personnes de bon volonté ñoo ngi leen di néew di leen ziyaare di leen ñaanal yàlla jàmm di ñaan yàlla yàlla yóbbu ñu ci bés bi jàmm salaam li nga xam ne moom lañ ci séentu muy des dons yu ñu war a yóbbul suñu moroomi jigéen yi au niveau camp yàlla may ñu ci lu kawe suñu njort ba ñoom ñañ koy yóbbul ñu gis ci seen bopp barke Seydina Muhammad ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp